jëwriñ ji gàlloo lépp lu jëm ci wàllum jur gi ci réew bu Sénégal di Aminata Mbengue njaay nekkoon ganuk dëkk bu sele bi di Touba ci biir ayu bés gilee moom jëwriñ ji nag amul benn yoon xel ñaar si woote bi nga xamante ne nii kuréel gi lëkkalee borom sayet di ci Touba woote woon nañu ko ngir ñu daal di amal ayu bis yoo xamante nii dañ ciy say wér-gi-yaramu jur gi ci Touba te duñ ci fay benn dërëm lii yàgg nañu koo def comme ni ngeen ko waxee mais mosuñu koo def fépp te ni ñu ko defee fii tey nag nii bu yaatoo wan nañu ni Touba am na importance bu baax a baax a baax ci wàllu fas ak ci wàllu liggéey ci wàllu fas boo nga xam ni jaadu woon na lii ñu def ko fi bu yàgg te définitivement lii du ñu koy def léegi mu nekk une tradition boo nga xam ni chaque année incha allah dinañu ñëw pour def ko. ci moom i ndaje sax ci la jëwriñ ji daal di profité waal di ñaax ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy saytu jur gi waaye itam li ci def transport ci dëkk bu sell bi di Touba ngir ñu mën koo gën a fonk ndaxte jur googu la ci la seen teranga nekk lii mooy seen outil de travail outil de travail nag boo ko yoree da nga koy da nga koy sàmm da nga koy defar da nga koy jagal loo nga xam ni ku xëy moo lay jox dépense ba ngay bàyyi ki sa kër boo amee sa soxla boo war a def wala yaa xam ba ci takk soxna yaa xam ba ci leneen ak leneen ci foofa nga koy jëlee ñooña war ngeen leen a fonk te actuellement organisation mondiale de la santé animale maanaam ci mbootaayu xeet yi kuréel gi toppatoo lépp lu jëm ci wàllu mala du ñoo jox trop importance bien-être animal bien-être animal mooy nga bañ di métital fas bi wala wala animal bu mu mën a doona ah, waroo koo métital waroo koo sonal waruloo koy liggéeyloo tamit yenn waxtu yu bare bari ba nga xam ne dina ko sonal mbaa moom dina gaaw a retraité parce que fas bi noo ko jàppee rek ak mbaam bi noo leen jàppee ci sa wàllu liggéey rek loola la ñu lay delloo yow itam en terme de produit donc lu demee noonu nag bu dee am jaadu na ñun itam ñu dikk fekk si leen ci loolu nga xam ne mooy seen outil de travail te ñu dénk ñu ko mu bokk ci ministère de l'élevage pour ñu ñëw jàppale leen ci. ki nga xamante ni moom mooy njiitul borom sareet yi nekkee ci dëkk bu sell bi ci Touba te ñu lëkkale seen bopp ci génn kuréel na ma ngay fësal li ne ni moom moo nekk ci ay fas ak ay mbaam yoo ne ni ñu ngi daw ci dëkk bu sell bi ci Touba di fësal itam jëwriñ ji gën leen a jox seen gëdd ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy dawalkati sareet yi. fi toll li fi ne ci ay fas mi ngi toll ci 17000 yoo xam ne ñoo fiy roulé normal du génn dëkk bi bokkut ak fas yi nga xam ni noora leen fiy andi ak gan ñi nga xam ne dañ fiy jaar di dem li fi nekk ci mbaam mi ngi toll ci douze mille kon xam nga ni booy wax transport ci wàllu saret boo ci génnee Touba amatul fu am ci senegal madame la ministre lu mel noonu bu amee Touba danoo bëgg nga bàyyi ko xel nga bàyyi ko xel ndax fi toll nii dañ ni mbaam gàtt na nag waaye ci jur gi la bokk kii ci dëccal kàddoom moom mi nga xam ne moom moo jiite kuréel gi nga xamante ni moom moo lëkkale mbooleem dawalkati saret yi ci Touba ñoom borom saret yi lee bëgg nañoo amal ab jataay ak jëwriñ ji gàlloo lépp lu jëm ci wàllu élevage di Aminata Mbengue Ndiaye ngir yenn ci li nga xamante ni moom moo di seen ay jafe-jafe daanaka bécc ñu lépp ci boobu la jataay daanaka bu dee fukk la ñaar yi dongu lañ ca fësal kon ba juróom-ñett war nañoo toog ak moom bu baax a baax ngir ñu mën a xool seen i jafe-jafe ban mën a am ak yow audience boo xam ni dinañ la mën a jottalee fi li li nga xam ni mooy njamatul borom saret yi te mënuñu koo wax fii ci jataay bi ndax bu dee fukka na nga yëg ni ñaar dong laa la wax kon des na des na juróom-ñett juróom-ñett yooyu nag dañ lay ñaan jataay boo xam ni dañ koo bëgg a toog yow ak représentant yi ne fii ñu mën la koo wax ba mu leer la naññ ba dara dootu la ump ci tran ci sareeti Touba yi parce que ñun ñett boo nu recevoir li nga bëgg a xam ci sa sa Touba yëpp ak doléance yi am yëpp da ko mën a dégg ci ab fàttali nag boobu journée de consultation ci lu toll ci juróom fukki agent vétérinaire nag teewoon nañ ci dëkk bu sell bi ci Touba ngir saytu jur googilee waaye tam ci lu toll ci juróom fukk ak juróom-ñeenti tonne aliment de bétail yoo xamante ne nii jëwriñ jébbal na ko borom sareet yi di fësal ni ma ngi leen ko jox ci turu njiitu réew mi di président Macky Sall